dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te abu abonné leen ngir dara bañ leen raw jëfaleen mbokki internet info 221 ak kawteef moo daal di am ca diwaanu Ngor benn soxna la ñu daal di faat ci guddi gi ci appartement am loolu sax mi ngi xewee ci Ngor femme boobee sax nag dañ ko fekk mu ñàkk ba kanam ci appartement ca booru nag 3 heures du matin la mbir mi daal di am Ngoone Saliou nag moo daal di fësal yi li xibaar bu ñu sukkandikoo nag ci anam bi nga xamante ne moom la faatoo ba tey jii leeragul waaye nag jot nañu xam ne re ni lii de caméra de surveillance yi nag ñu nu installé wetam dafa mel ni daal jot nañu fësal vidéo bi xamante ne rek ki ko rey jamono ji nga xamante ne rek daal dina ko faat beneen i kawteef daal di am nag benn soxna ak i doomam moom la vigile daal di dóor nag ba mu nàccal vigile boobee sax nag mi ngi woon ci hôpital wala nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum santé wér-gu-yaram mer ba futtu daanaka xale bu jigéen bi kanam bi yëpp ab deretal la askan wa yeewoo gàddu yéreem yi la daal di teg sax ci boppam ngir rek nag mën a fomp deret bi nga xamante ne moo taq ci boppam jamono ji nga xamante ne mi ngi doon jooy image yi ngeen di gis ni muy circuler ci benn soxna boo xamante ni euh, ci kanam waaye tamit kenn ci direction bu ministère de la santé euh, loolee sax nekk loo xamante ne jamono ji image yooyu bañ ko posté ci page Instagram visuel bi nga xamante ni moo nekk ci ministère de la santé moom la ñu tuumal ne nag moo def lu nu mel moo daal di dóor soxna si li euh, ci anam bu jéggi dayoo waral sax nag deretal di deret di tuuru moom ak i doomam ginnaaw ba ñu tàntee ne dañ bëgg a défendre seen bopp mbir yi nag mi ngi amee ci kanamu direction bu programme bu xeexi jëlee lu jëm ci feebar bi di lii nag lii war a tax nag vigile bi def act bi nga xamante ne doy na war xamaguñu waaye nag buñ sukkandikoo ci kenn koo xam ne seede la fekkee na mbir mi gaañu gaañu yëpp ak deret bi mi ngi daal di sottee ko ci soxna si jamono ji amagul kenn ku ko taxawu ngir mu yóbbu ko hôpital beneen mbir bokk nag kii di Serigne Moustapha Dramé yàlla kese moom nag daal di nañ ko daan ñaari atu kaso waaye nag ñetti weer yi rek la daal di tëdd Serigne Moustapha Dramé ñu gën ko xam ci yàllay kase jot nañ ko condamné diiru ñaari at yoo xamante ni ñetti weer yi daf koy tëdd ci kaso bi waaye tamit dina fay lu toll ci ñaari millions lu toftal six cent soixante quinze millions de francs CFA maanaam de francs CFA ci titre ak dommage intérêt ngir raw bañ koy toppee ci lu mel ni njuuj njaaj waaye tamit lu jëm ci wàllum nag njabar décision bi nga xamante ni euh, parquet bi jël nañ ko nit ki tey nag ci àllarba bi yem ak fukki fan ak juróom-benn euh, ci weeru octobre 2024 nag ca tribunal des flagrants délits de Dakar donc nag kii di Serigne Moustapha Dramé diiru ñaari at lañ koy tëj waaye nag ñetti weer képp rek la ci daal di tëdd ginnaaw ba ñu koy àttee